waaleykum ngi sant yàlla di julli ci Mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa di nuyu mbooloo mi góor ak jigéen. di ci jiital kilifa jotaay ji di suñ sëriñ Cheikh Mouhamadul Kabir su ma waxee suñ sëriñ du soxla jox tegtal ndax al amru awdahu min shamsin ala al amru awdahu min mooy suñ sëriñ loolu soxlawul leeral eh, Cheikh Mamadou Kabir ñoo lay nuyu di la eh, di nuyu mbooloo mi yëpp ñi fi teew mbooloo bi nag am na fi ay doomu aadama yoo xam ne eh, ay jàmbaar lañ ay góor lañ ñu bari yitte lañ te dañoo bëri jëf néew ay wax bokk na ci Thierno Jombana moom mu ngay gis Mouhamed Jombana ak e, Thierno Mouhamed Touré mii nga gis nii mu toog noonu muy suñ njaatige ca Kaolack ak monsieur mii nga gis nii suñ ba ban yooyu ñuy def si yu rafet yooyu suñ gàmm gi Mermoz macha allah moom moo ñu koy abal te yëgalu ko yaramam di def lu baax te yëgaloo ko sa yaram bokk na ci alhaji Keba Ward macha allah bokk na ci Moustapha Thiam moomu bëri nañ suñu xadara bi bëri na fi ñoo xam ne mm. yàlla rek mooy tax ñuy def te chaque jour ñoo ngi def te xooluñ si ma yëg ko wala ma ñàkk ko yëg mm. loolu su ma koy wax Oustaz Ali moo ngi nii sama wet mm. Oustaz Ibrahima am mi ngay gis nii depuis bi mu ñëwee ci xadara bi ba tey gisuma benn njëriñ bu jóge ci xadara bi jëm ci moom waaye moom toujours temps am yëpp moo ngi koy jeexal ci xadara bi waxtoom ak xaalisam ak léppam moo ngi koy def ci xadara bi loolu su nekkee ne dëkku am na lu ñu koy firee loolooy dëkku man loolu laa jàpp mooy dëkku Oustaz Ali moo ngi nii ñoo ngi koy nuyu daayiratul ula nañ ko bor maa ngi ko koy wax keroog mooy wax déedéet ndax amoon na ngente doon tudd boobu man maa ngi si ñeensoor daayiratul ula waroon na ci def loxoom ndax moom amul lu dul daayiratul ula daayiratul ula tamit amul lu dul moom macha allah ma ne ko nag incha allah maa ngi wax gaa yi àjjuma bii di ñëw kuy ñëw da nga ngànnaayoo dara pour ñu fay ko borom boobu. Hmm. ndax ngénte li ñu ñoo ko waroon def. Hmm. ndax oustaz Aliou ni mel ci xadara bi. Hmm. warul xewle dara te xadara bi maanaam eh, defu ci diisaayu loxo. ñoo ngi nuyu Birane Ndaw jóge ba seedo ñëw fii. alal kulli ñoo ngi ndokkeel ñëpp. ci waxtu am barke wi. ci bés wu am barke wi. ci weer wu am barke wi. ndax weeru weeru koor la xam ngeen ne weeru njéggal la weeru yërmande la weeru goreel ci safara la weeru leylatul qadri la weeru alquran la waaye en même temps ñoo ngi ci bésu ajjuma xam ngeen bésu ajjuma la ci nekk ci xewal moo gën ci bés yi mooy sayyidul ayyaam yi seen Abdoulaye moo daan wax ajjuma defarul dara yàlla ba yàlla di jël ajjuma di ko teg ci ko bés yi weeru koor defalul dara yàlla ba yàlla di jël weeru koor di ko teg ci kaw weer yi laylatul qadri defarul yalla dara ba yalla di jël laylatul qadri di ko tek ci kaw guddi waye ci coobaram la mom la neex mu def ko ku japp fofu nga comprendre fofu da nga xamne su yalla jëlé bàyyi ñes tek ko ci ko wuli yalla yi moo ko neex rek la ñew su nekkee ne laylatul qadri am na ñong koy firi dégg-dégg ci batin rek xamal ni mom mooy bàyyi ñes waye man waxuma loolu Thierno Abdoulaye Dia sama serigne def ma ne kenn mënul firi alcorane te tuddoo ci bàyyi ñes illa dégg ko alxuraan la ko benn bés nee na ba mu waxee daf ma jaaxle sax mu ne alxuraan lépp ba mu jeex bàyyi ñes rek lay wax ndekete am na ko man benn góoru yàlla tudd Abdullahi waladul haaj tey yaa lañ ko daan tuddee kooku la bàyyi ñes tagg ba ne bal misluhu baynal wara laa yujab ni Abdullahi waladul ci kaw la laa yujab xam nga bàyyi ku muy tagg ba ne la ku mel ni moom ci mbindeef mi amul kooku màgg na maqaam te man damay wax toujours gis naa lettre buy bàyyi di bind di ko tuddee cheikh yi sama sëriñ te man bàyyi li muy bind yëpp gisaguma fu mu bind cheikh yi sama sëriñ di tuddee nit sama sëriñ lu dul alhaji abdoulaye ñas bàyyam mais abdoulaye waladul haaj moom li ko yàlla may ci tawfiq moom def ne yàlla may na ko ne mën na firi alquran lépp ci qaala rajulaani qaala wax na rajulaani ñaari góor mm. loolu ay alquran la qaala rajulaani man naa firi alxuraan ci xaala rajulaani loolu li muy firi rajulaan ñaari góor yooyu góor baatin lañ firiwul góor ña góor yooyu doon histoire bi di wax noonu ci zahir ndax góor yi ñett lañ góor yi ba yàlla sàkki asamaan ba bésu pencum yàlla góor yi ñett lañ rek xaala rajulaan a ngi foofu ñaari góor nee nañ ña ngi foofu waaye xaala rajulu na ngi ci alxuraan tamit benn góor nee ñoo xam ne kon góor yi ñett lañ ba mu waxee qaala rajulaay man naa firi alquran ci qaala rajulaay doomam ji misri dafa ñëw ci baay jokk ci baay tarbi ci baay naan ci baay ba fees der mu ne sama baay de ngand la woon góor la woon yeggoon na fu sori ba ne woon na moom man na firi alquran ci qaala rajulaani ñaari góor nee nañ waaye man ni fi ma toll nii tey mën naa firi alquran ci qaala rajulun benn góor nee na waaye ñaari góor la wax waaye man benn góor la ñaari góor yooyu muy wax mooy man na firi alquran ci ñaari góor mooy ñaari loxo yooyu di yàlla bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa mooy góor nubuwa ak góor bu wilaaya maanaam man na firi alquran ci nubuwa ak ci wilaaya ba mu jeex nubuwa mooy zaahir bi wilaaya mooy baatin bi qaala rajulaan yahud yi dañu ne yàlla yadullahi maxluulatun loxol yàlla gi de dañ ko tënk maanaam yàlla daa nay alquran daal di tontu xullat aydihim wa lu'inu bi ma qaalu bal yadaahu mabsulatan yal na leen yàlla toroxal yal yàlla tegg seen loxo ñoom ndax jamono bekkoor la woon taw tawul ñu sonn lool ñu ne yàlla daan nay loxo bi dañ koo tënk yàlla ne xullat aydihim yàlla nañ tënk seen loxo ñoom wa lu'inu rëbb nañ leen bi ma qaalu ca lañ wax bal yàllaay tontu de su nekkoon ne kenn ci ñun mooy tontul yàlla dañoo yahud yéen a mën yàlla amul loxo yàlla amul loxo yàlla amul loxo xam nga ndax loxo ceer la te yàlla amul ceer taala mm-hmm. allahu an zalika uluwan kabira mm-hmm. waaye comme que yàllaay tontul boppam lu mu wax rek dañuy jàpp loolu la mm-hmm. yàlla ne bal déet yadaahu man sama ñaari loxo yi mabsuudataani dama ko lal yunfiqu kayfa yashaa'u yàllaa ngi joxe nu ko neexee ñaari loxo yi mooy loxol nubuwa ak loxo wilaaya Cheikhu Tijaani yi def ne ruuhi wa ruuhuhu sallallahu alayhi wa sallam ko aatee Muhammad nii la mel balaa yàlla di sàkk asamaan ak suuf fa ruuhu tumiddu l anbiya wal mursalin ruuhu yonent yàlla Muhammad moo doon dolli yonent yi ak mooy waysolu yi waaye man wa ruuhi tumiddu l awliya wal aqtaaba wal aarifina min al azal ila al abad maanaam jëlee ko ca azal jëlee ko ca ba ca abad man Cheikh Tidiane may dolli bépp wali yàlla bépp xutbu bépp kaamil bépp xawsu bépp fardu amul kenn kuy nekk ci kaw adduna bi fala zarratun illa wa fadat bi qismati ba bépp atom yi naaw ci kaw jaww ji sax Cheikh Tidiane def leen di seet ba tey kon mooy ñaari loxo yi bii nubuwa la bii wilaaya la waaye ñoom ñaar ñëpp fa saarat li al aynaani ayna xaqiqatin qad ittahada al aynaani fi kulli rutbati ñaari loxo yi am na fu ñu bokkee nekk benn loxo ñaari góor ñi am na fu ñu dajee nekk benn góor boo koy góoru góor yi boo koy leelatul qadri boo koy weeru koor boo koy bésu àjjuma bésu àjjuma yowmul jumati lay firi jum a daj lay firi maanaam soo yeggagul yàlla nga dajale lépp sànni ko ci péyib yàlla gi far rek wa jam fa innal ayna wahidatun wa hiya kasiratu la tubqi wa la tazar fekk yeggagoo ci jam googu mooy bésu àjjuma googu xamagoo luy àjjuma àjjuma dajale lay firi dañ lay nit ñëw mu jëlee ci jam manoo dajale lépp nag tey mu nekk benn lu dul ba nga yeggee a ka dajale mooy alfardul jami mooy mawlana Cheikh Ibrahima kon Cheikh Abdoulaye waxee alquran lépp bàyyi lay firi loolu dégg la ba mu ko waxee man def ma dem ba comprendre lu tax mu wax ko ku bëgg a dégg ah. fekk ma kër ga ma wax la nan la alquran bi yëpp nekkee bàyyi fi ñu toll waxtu yii nii waxtu ah. waxtu ak timis ci ci koor inna li rabbikum fi ayyaami dahrikum la nafahaat eh, inna li rabbikum yonent bi nee ne borom am inna li rabbikum borom fi ayyaami dahrikum ci seen bésu jamono am na fa la nafaxaatin ay ëf ala fataaradu laha fexe leen ba dajeeg ëf yooyu la alla an tusibakum nafhatun fala tashqawna baadaha abadan xëy na képp ku góorgóorlu ci yéen ba benn ëf ci ëfu bu yàlla yi daj ci moom ci waxtu yooya kooku dina texe te dootul texe hadi ba abadan ñun dañoo war a sant yàlla parce que gannaayu ku jël kursam dinong inong nongi jëm ci péeyu Ibrahim Niass ak bu mën a doon ci Ibrahim Niass yi ak muqaddam bu mën a doon te day tuddoo Baye di askano Baye nga sol sa dàll sol sa yére téye sa kurs jëm ci xadara boobu xamal ne qad saaqali al muridu man yuridu naf'an li diinihi wa man yasuud Baye Niass ne man qad saaqali al muridu yàlla murid bi kii nam ma def def woomatal na ma man képp koo xam yuridu naf'an li diinihi koo xam dafa bëgg njëriñu ci diineem man Baye Baye nee na kenn du ñëw ci moom lu dul ku yàlla bëgg nga jëriñu si sa diine kenn du ñëw ci moom lu dul ku yàlla bëgg nga xam yàlla xam yonent bi ràññee xam-xam ba pare xàmmee bëri na ñoo xam ne xamoon nañ juróomi téeméeri salaatul faatih ñoo yeggal nit yàlla waaye xamuñu bés ya maanaam xamuñu waxtu ya ndekete waxtu yaa def ko dencal kaamilu zaman ku ñëwul ci moom doo ko xam am nañu doon fukki junniy saako bàyyi ba guddi oh. waaye ba ñëwee bàyyi jox leen lim gu ndaw googu ak waxtu wa ndax waxtu tamit secret la ci mbir mi موي وقت يوي ديال خام من 500 فاضت حقائقه آه. بالاذن والشيخ في تقسيم الازمان بدقت للفاتهية اوراد مطلقة بين البقاء والفناء للفاتهية فات الفاتح امن اوراد اي ورد مؤلقة يوم بينكم بين البقاء والفناء <laughs> ديكي ديكي ديكي سبب رك nga jékki-jékki gisatoo sa bopp. kunna bina fa na anna fa baqina na. ñun la woon ñu dem ñëwaat fekk mosul nekk ñun ñun ñoo xamul woon. loolu yaa ngi koy amee ci Sadio Fatick yaa ngi mel nii. waaye nag yaa ngi koy ci aljaami ci bésu ajjuma jamu bi nga xam ne moom lañ nekk ci bésu ajjuma gi. moo tax su tuddee bàyyi ñes aljaami te defoon naa ci bayt yaakaar naa mus naa ko nettali. جمع الجوامع جامع من جامع في جامع فالامر جامع جامع وين اوتي ديريا بن هاي هاي دابا حال يا كان تي تي غوتي لا وون كوتي ميني خيمي كول بكوتي فجر تي جمع الجوامع جامع من جامع في جامع فالامر جامع جامع موم دار خام لا ني موم ييك موم بروم خام خام لا داي داي فري waye jaami bi moom xam na ne lépp li muy fii daal mooy mu ne loolu rek la ci dégg moom loolu moo tax mu xaalu boo ko dafa jàll parce que ba mu ximmee ko ñoo ngi wax tax ma ne ko yow xanaa bayti bi da ngay dégg li muy wax mu ne wax bi yëpp daal xam naa ne daj la te bàyyee dajale lépp loolu nga bëggoon wax loolu moo ma yóbbu ñoo ngi sant yàlla Oustaz euh, Cheikh Hamdoul Kabir macha allah xadara bi xadaraam la saa bu déggee dara xew du xaar sax kenn woo ko macha allah day ñëw bokk ak ñun fii ma nahnu alayhi min al xayri wa saadati mm. ñoo ngi koy ñaanal yàlla moom moo demoon fële ca dëj ba dëju Ceerno boobu nga xam ne Cheikhu Ceerno Abdoulaye Diallo moom la xalifa bi yónni woon foofu pour mu teewal ko foofu macha allah jamono weeru koor la jamono tàngoor la macha allah foofu na mu tàngee waaye alhamdulilah yi volontaire na ba teew ko su fa teewee dafa mel ni ñun ñëpp teew nañ ko ndax ñun ay taalibe lañ ci ginnaawam lañ góor ñoo ngi ñaanal Ceerno boobu yàlla na yàlla yokk leeral di ñaanal tamit suñ mbokk tokora bàyyi jaram dafa génn àdduna moo ngi noonu Eh, côté Kaolack. Mm. ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla yokk leer. bëgg bàyyi ngi ne de seen mbokk dafa gaañu eh, ci accident bi amoon foofu si côté Nioro. ñoo ngi koy ñaanal yàlla moom tamit yàlla yàlla yokk leer. di ñaanal ñëpp di wax ne timis gaa ngi eh, yegg si. dañuy dellu ci programme bi ni muy demee dama waxoon oustaz Baye Thiam sax mm-hmm. nañu dëggal balaa timis bi di jot mm-hmm. waaye loolu mu ëmb noonu bu mu ko imbi na ko téye rek dinañ ko soxla incha allah su kanamee mm-hmm. oustaz Baye Thiam oustaz Thiam nee ne dañuy eh, ndogu ci saa si du yàgg reer bi ñëw ñu reer suñ paree nag continuer ziar bi nga xam ne suñ bokk jigéen ñi ñoo koy faral di def chaque année eh, ñu continuer ci ziar boobu képp koo xam ne yàkkam ci ko ñoo ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp ak di ñaanal yàlla ñu yàlla lu yàlla séddal ci weeru koor yàlla buñ ci gën a bëri ci daraja yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alhamdu awalu da'wana wa axiruha walhamdulillahi min hinin ila hinin asalaamaaleykum wa rahmatullah déy nirabi moo ngi fi ñoo ngi nuyu suñu sëriñ déy nirabi